jox ko jub fii am na fi ñu toog ñoo xam bi ñu may téléphoné sama benn xarit de mu am doom ju ko të mënoon na la ko bëgg a jox waaw man buñ ma joxee téeméeri të fu ma jëm par të ba muy cent të ak kii bandi la ñu jox ma cent bandi ak cent të ak day sàcc muy cent sàcc léegi man fu may taxaw ñun suñu taxawaay wax naal ñoo police ñoo bokk àtte parce que police kenn du fa yóbbu lu dul ko jubadi am de ñun itam kenn du ñu jox ñu dul ñu jubadi mais kon gouvernement daf ñu war a massaw xam ni ñun suñu taxawaay mooy araftu alerte ak mbandi bañ mu am mais noonu ñu jël rajo yeeg télé yeeg def ko ay débat loolu day débat wax leen ci góor jigéen ñi caga ji ci mbedd mi ak auberge ak baar auberge yaa ngi fi baar yaa ngi fi yamba jaa ngi fi lépp a ngi fi waxu leen ci ngeen jël rek ay taalibe sëriñ bu mokkal alxuraan jàngal xale bu xam ne dañuy daw mu jéng leen téye leen mais yéen itam bu dee droit de l'homme lakk leen ba ci prison yi ngeen xool li ma wax man du ma wax di làmbatu du ma wax di làmbutu dem leen ci prison yi alors que nag loolu moom désormais day daal di jeex benn yoon tëggum ndënd la ak sémmiñ bii moom <clears throat> jeex rek te lu ngeen ci lu ngeen ci ñeme nag ñu ñeme lu ko ñun benn patron lañu am benn patron lañu am moom moom alquran moo wax alquran muy sunu borom jigéen ñi yéen a ngi nii toog kan moo ci ñemee boyeleeg téere alquran. booyal leen ko ngeen xool seen kër yi boy. du ci gis téere alxuraan même boo gisee aw dagg di ngay tiit for ko kay bi sa doom jàngee école ak livre bi mu doon jàngee bu ko weesee dang nga ko naan tareet roof ci fourne bi cos almetek dara du la ci fekk waaw loo man wax juñ mën a booyalee bokk naa wax joo xam ne ku ko dëgg alku alquran wax yàlla la njàngut yeneen lakk yépp waxu nit la mais benn lakk mooy waxu yàlla mooy alquran waaw léegi alquran nu muy yombe waxu yàlla dugal ko ci dënn mënul yomb loo xam ne bu daan wàcc ci yonent bi yonent bi day kat kat kat kat lu mu sedd sedd day crise ndax diisaayu alquran dégg naa benn oustaz mu ne waaw waxatahoo euh, loolu mooy da ko damm def na ko nii ci dënnam bi maanaa da koo naj ana saaliw kaay sukkal nii sukkal nii rek lii dee mooy naj bii bii moo gën a ñàkk teggin di ko def yonent bi lii dee mooy naj wala nga fekk mu toog nii nga def ko nii naj lii mooy naj ci olof mu ne nii lañ def yonent bi yow yaa reew Maodo xam nga lu mu bind waxatahu li buluuqil jahdi xaa'ilahu faqra wa qaala lahu maa daaka min nuzumi yow nag dama lay ñaan yow ustaas bi yow mi ko doon firi maa ngi lay ñaan li buluuqil jahdi firil ma ko na ma ko firil foofu rek laa soxla dimbale ma rek firil ma li buluuqil jahdi akolaat lu cen di sonnee bay bay lox roofanti dana lu ci ni sonnee bay lox benn imam bëgg naan dañ ko naj rek naj naj yu yem naj naj moom it bëgg enveloppe waxattahu li buluqil jahdi xaa ilahu faqra Maodo ne dañ ko mbokk di ko fitnaal ba mu yegg fa coono yam li buluqil jahdi ca dayo coono fa yegg bi muy jàng mhm. booba am na quarante ans yor soxna yor doom moom yonent bi ñu def ko lu mel noonu li buluuxil jahdi te yegg na ci daye coono ma laaj leen akolaat am na yegg daye coono mhm. waaye yow doo wax dëgg yow itam bëgg naan di kaasal am ministre naan waaw ministre sàngam yow yow luy sa yow ministre mooy lan lan mooy président lan mooy ministre lan mooy borom xam-xam lan mooy ku jàng yàlla soxla yooyu ku jub la soxla wa innaka la ala xuluqin azim yàlla jub rek la soxla waaw ministre bu yóbbu doomam muy jàng daara lu ca ne xanaa yàlla bind ko moom xanaa doomam yàlla bindi ko lan moo ca ngand lan moo ci ngand man jàngal na ay seti Maodo ah Maodo yemul ak président yemul ak président jàngal naa seti maam Cheikh Bou Kounta ñu dëkk Tiwaawoon ci Njaasaan maa leen yoroon ñoom Cheikh Mbacke jàngal naa leen ñu indil ma leen